بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على صاحبنا صاحبنا الذي ما ضل قط وما غوى wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa ayuha saadaat wa sayidaat maachara almuslimina walmuslimaat assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yu tedd yi maa ngi sukk samay bëti om ci kanamu kenn ku nekk ci yéen di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen ziyaara di jiital ci nuyoo yooyu kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoom laa si jotaay bi te su ma ci tuddee imaam Abdul Ahad Mbàkke imaam Siise imaam Ndaw jëwrin maam Cerno ak sama doomu nday serigne baara ñu yobale kilifa yi ci dess yépp man ci seen biir ab ndonga daara laa ci biiru oustadam ab talube laa ci biiri serignam ma ngi ku di nuyu sama wayjur yi ma jàkkaar lol ci ay goor ak jigen tay na melni seen doom moy waxtaan ak su ma juumee na ma gàgganti and I hope gën a do it right away di ñaan yàlla suñu boroom mu nangul ñu di ziyaar daayira bi yépp di ziyaar Detroit yépp di la jéggalu sama xarit sëriñ Moustapha ci li xew sama njuumte bopp la man mi ci toogoon fii sama rakk la fi mu tok maa fi tek limu don defit maa ko sante sant ci sama ñaka xam xaj na la tegoon ñu ngi lay jégalu bu baax xam nañ coono bu baax yi ngeen di dacc ci bis bu melni ñu ngi lay ci jégalu bu baax di ñaan suñu borom mu nangul ñu jotaay bi ndax ak nangu rek mo am solo dinaay dégg ñuy wax ni yalla ku nar la fay du la liggéeyloo waaye ba ma jàngee wa na ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura ci laa xam ne ak nangu rekk am solo ndax suñu boroom nee na am na ñoo xam ni ëllëg yowmal xiyaam seen jëf dama koy def pënd jëri ko ñu set wicc ci jëf ju baax ma sànni leen sawara moo tax ki ñu jat dajale ci jotaay bii di Cheikhuna Ahmadul xadiim wona boromum boroomam yon ci jësbul qulub ta len rek la ko don doye sakku ci mom mu nangu suñu ay jëf geureum suñu ab dox ya Rabana, ya Rabana, ya Rabana, ya Rabana. يا ربنا اشكر سعينا بالمنتقى المحترم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا اشكر سعيانا بالمنتقى المحترم kon ak nangu rekk am solo yàlla nañu yàlla nangul su ma mënoon jóg fii ma toog fekk kenn ku nekk ci yéen fi mu toog jox ko loxo ñi teewul ma fekk leen ci seeni kër jox leen loxo kon doon naa ko def pour sant leen gërëm leen te ci turu bépp taalubéb Seydina Limaamul Mahdi yu buy dund fii ci Amérique laa koy defee ci taxawaay bu rafeta rafeta rafet bi ngeen ñu taxawu ci bisu Chérif Ousseynoulahi bii di weesu seen baax la àddina yëpp di waxtaane seen yéwén la àddina yëpp di waxtaane seen yaatu dënn la àddina yëpp di waxtaane soxna Fadima mu ngi ni tok di présidente dari Lion bu bu Michigan anda ak soxna mam Aram soxna mam Top Sirina isa sek di coordinateur membre daire ba ngi ni jingen ñu teranga jo xamni duñ leen ko musa mana fay way yalla mi am fay yalla suñu borom fay leen sama conseil ci yeen nak moy fi ngeen tek sen tank bu leen ko musa a teggi ndax li leen boole mo upp doole fuuf li leen taxale bu fekkee ni tarixa moo leen taxale diine moo leen boole damay faral di wax ni tarixa yi ay peri wurus lañu per boo ci ber day rafet waaye boo leen boolee nas ci benn caq seen taar day yokk fa durru yazdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntazimi benn waaye dafa ma wax bés ne ma seydinaa bu fekkoon li am ci compétition sportive yi am na ci diine ji kon murit yi dañ lay jënd ci laayeen yi ma ne ko waaye combat bi du diggante laayeen ak murit du diggante tiijaan ak xaadar combat bi diggante leer la ak lëndëm diggante mbaax la ak mbon diggante njub la ak ndëngte diggante ngëm la ak weddi combat bi diggante lislaam la ak kéefër kanta diggante laayeen ak murit tiijaan ak xaadir foofu dara xaju fa lu dul wa agrina bi xubbihim li wajhika wa agrihim bi xubbina fa nasluka sëriñ Tuubaa ka ci matlabu shifaa yi wa agrina nanga ñu xiir ñun laayeen yi bi xubbihim ci ñu bëgg leen ñoom murit yi wa agrihim te nga xiir leen ñoom murit yi bi xubbinaa ci ñu bëgg ñu ñun laayeen yi wa aghrina nanga ñu xir ñun tijani yi bi hubbihim ci ñu bëgg leen ñom wa agrihim na leen xir ñom xaadir yi bi hubbina ci ñu bëgg ñu ñun tiijaan di wut dara dox jëm ci ba ben moment nga yek ni vraiment lott fi ma bëgg àgg manuma fa agalé sa bop wëlbeutiku di wo jami ñi ci ñaar yoon kessela ma sa gis mu def ko ta moy ñaar yi nga way ni sayidina al imam di mam libas ñang wax na ni wareefu julit bu ne la dafa wax ne na ngeen deklu baat bii damay way yoneen bii booleeg santa rabbi ta mo war ku ne ci ñaar yoy kese la ma a gis mu wané ko bu dee ci walu tag rasulullah suñu borom barkelon na xëlimaam ci ben niveau bu extraordinaire wax na ni isa katabtu farihal muzammilu wan qaadali min al jamilil amalu nee na su cappee bu bind rek rasulullahi day bëgg ki jiit ñépp it ci tagg rasulullahi di hassan ibnu thabit sëriñ bamba nee na suñu borom dem na ba àggali ma niveau bu kawee niveau bi mu toll woon ilaya rabbi salabal lisaana wa fuqtu fi matxi nabi hassana li mu taalif ci ay xasida di ci tagg rasulullahi kenn xamul na mu toll sëriñ Bachir wax na ci minan nee na sama baay daanañu génneel ci weer wi ci ay xasida yu mu bind yoo xam ne dañu daan toog di ko waxtaane naan lii de fukki fukki nit yu toog di bind te seen xalima du teggi ku sax jafe nañu bind ko ci weer wi nee na moom kot moo ko daan bind ci weer wi poésie arabe classique la daan binde parce que moom la jàng métrique dafa am ay façon rime yoo xam ne mën na fukk ak juróom benn daanaka façon rime yépp tagg na ci rasulullahi ba ni mu nekkee Mauritanie mu gis ay naar di way ci beneen rime bu neex boo xam ne bokkul ak rime yi mu xam daal ci bind mu gis ne rim bi daal tagg ci rasulullahi jaadu na ci la bindee mawaahibu naafi'i fi madaa'ihi shaafi'i kon dangay gis ne kooku deselul dara tagg yonent bi right mais avec loolu lépp taxul mu am satisfaction ci li mu tagg yonent bi au contraire dem na ba benn moment mu sentir ne dafa mel ne ku lot ci ag fi mu bëgg ag ci tagg yonnati bi alayhi salaam ba ko di sakku ci jaam yi ñu jappalé ka tagalé ka soppem bu tedd bi inni bi madhi ayan turib xi qatan wa nujxi maal binay nee na man tag gi may tag rasulullahi pay gi ma ci suñu boroom di fay maa ngi ne ci jàkk di ko xool mucc gi ma ci suñu boroom di defalit wér na ma sama jafe-jafe kay leneen la lakin ajastu amal tamastu nee na sama ji أست عملت ما nee na sama jafe-jafe mooy dama sentir ne dama lot ci àgg fi ma bëgg àgg ci tagg yonente bi wama madaxtu kannu balaa yi ba léegi taggaguma ko comme ni ko noble poète yi di defe xarami daadi na bind naa ba samay daa ñiis nañu li to me very carefully xaarafu aadi nee na xalaat naa xalam naa médité naa ba sama xol jaaxle na عن مدحه bu للبدالاي ñu nekk kan moo jeexal sa daa ci kan nga doon xalaat ak xalam ba sab xol jaaxle mu ne xanaa tagg gu matale ñeel ki nga xam ni nitu yàlla yi nga xam ne ñoom la ñuy woowee al budala nga xam ne ku ci génn àddina sax dañu lay remplacer ñoom ñépp moo leen moo leen i wan yoon fa kayfa nee na fan laay jaar ba mën a am matxan lii muuxi tagg gu matale ñeel ki nga xam ni ay maqaamam ak i xar bu toll woon ak tolluwaayam tuuram rek boo ko tuddee lu dee woon dekk wal matxu muuxi lil uqalaay te nee na tagg rasulullahi tagg gu matale lottuloo na ñi gën a smart ci poète yi sëriñ bi yaa ñu waxoon ci muxaddamaatul am daax ni doo give up yu ba jilu kulli kullakal yow ma maqadin wa insha rabbi laa ura dëhrata wanni ñu nekk lan ngay lan ngay def mu ne laakin unaadi ni may def mooy damay woote ñu nekk kan ngay woo mu ne kullal ibaadi jaam yàlla yépp laay woo pour lan إلى عمادي بلا جالاي jaam ñëpp laay woo ñoom ñëpp ñu ànd soutenir ma te bëgguma kenn ci ñoom des ñu nekk jaam yi yow lañuy ñuy déglu yaa mu ne yéen ñi dëkk ci boori jéeri ji yaa ala ak yéen ñi dëkk ci boori géej gi mujuli baari baari saaxaay jóg leen bu kenn des nañu ànd ñun ñépp ñu tàgg sama soppe bi rasulullahi ki nga xam ni mooy géeju tab gi bu niir yi di taw doon bu nit yi di taw doon xool ci yow kenn du jooyati mara xiif ci duniyaa mukk yaa man ci tab yi le te yow mi dafoo kuy xiina kay dëndu door a taw say may mbégte lay àndal amoom kenn ci gaa yi le mu mel ne dañ koo laaj nekk yow kii lum la defal mu ne maax yu bi li ma àndaloon ci ay sikk lépp moo ko far ba mu set wicc mubdi wuyuubi li ma teg bët ci géeju kumpa lépp moo ma kawan munqi juyuubi mina taaxaay nee na sama der li ko waroon a tilimal lépp moo ko raxas ba mu set musdi aayaadi nee na ki may wax borom loxo bu tabe la murdi aadi nee na samay noonu yépp moo leen moo mooti muraadi maraxayi nee na li ma doon sàpp lépp moo ko teg ci sama loxo dund gi ñagasoon na waaye tey lépp neex na te lépp moom la ñu nekk koo xam ni dem nga yow ak li sa xalima rafet rafet yépp manoo kaa tagg tagg gu matale kooku kawe na de naa la jaala sëriñ bi koo xam ni taaru na ba mënoo kaa tagg tagg gu matale kooku rafet na de naa la jaamaala ñu nekk taar bi di jamaal gi ak kawewaay gi di jalaal gi fu ko jële mu ne mi mantaala rabbi samaay ngi ko jëlee ci ku kawe ki ki nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf xam ngeen ni ooteb Serigne Bamba ëpp naa tànqamlu te dafa woo jaam yépp ñu àgg ñu jàppale ko ci santale ko boroomam sëriñ siiti da ngay yëkkati naa la jalaala bëgg naa képp ku bëgg a wuyu woote sëriñ bàmba jàppale ko ci tagg rasulullahi nga ànd ci naa la jalaala sama bët fu mu wane ak lot bu ñaareel bi mooy sant boroomam xam ngeen ni faqirun shaakir la mooy koo xam ne suñu borom da koo xañ lu bari ba pare mu muy sant gis ngeen ni lu jiitu muy génn dëkk bi la tàmbali ak cantam diirub at yi mu def Gabon yépp sant boroomam la fa nekke woon itam bi mu dellusee ci dëkk bi lépp lu musa sant boroomam xeeb na ko ba wax ni comme dañ ma yóbbu woon teg ma lu metti ngir ma saalit ma muñ fa muñ gu rafet ba ñu indiwaat ma fi ma jóge woon kon nag mel na ni sant sama boroom jot na ma tàmbali ko wax ni shukru ilaahi xaana fii turaab yi baada jamili sabri fi xtiraab yi dundam comme ni ngeen ko xamé ci ñetti dekk la ko passé muy sénégal ak gabon ak mauritanie sénégal lay wowe kërëm lek-lek ci day. yi gabon lay wowe géej mauritanie lay wowe désert Tawahna waxna ni ñetti bërëb yoy yépp nga xamni dundam yépp ci foofa la ka passé sante boromam la fa nekke woon jël na la in shakartum la azidannakum mu bind ci xasida gu matale goo xam ne leeral na ni fenn fu mu jaar ci dëkk yooyu yépp sant boromam la fa nekke li rabbin karimin waasiin xayri maabudi shukuri la daadaari wa fil bahri wal nee na sukuur yi samay cant ak samay ngërëm musuma dañ di ko jooxe jëme ko li rabbin karimin ci buur bu tedd waasiin buur bu yaatu xayri ma bu di ngën di ku niy jaamu fan ak fan nga doon sante sa boroom mu ne la daa yi ca sama kër wa fil bahri ak ca géej ga wal bii di ak ca désert ba bu la neexee nga ni ca Sénégal wa fil bahri ak ca Gabon wal biidi ak ca Mauritanie li rabbin karimin waasiin xayri maabudi shukuri la daa wa fil bahri wal biidi ilahi hakimun نافع ذو تفضل غني ومغن جوده جود تابيدي نفعني الأعداء أطرا وساق لي مرامي بلا كد وضيق وتشديد ñu nekk nooy sant sa borom munashukuri lahu bil qalbi wal jismi sarmadan wal ijad bit tawfiq fadlan wa tasdid neena may man ni may sante suñu borom dafa metti Nda xol bi da ci and ak mbollem ci yaram yi mu melni suñu borom dako laaj nek bi Cantu gu metti gi nga may sante lu la muneka dani ila dikrin وشكر لكم به من انقدت في منكم بلطف وتسويد mu nekk li tax ma lay cant sant cant goo xam ne amul fu mu yam te sama xol moo ci ànd ak mbooleem sama cëri yaram mooy xéewal yu baree bari yoo xam ne dafa bàyyi ko ci yow yàlla ñëw ci man suñu borom nekk man mii lu ma la defal mu nekk nafaytal adaani Lima ma metti woon yépp doon ma daxal nga mak wali suqta matlabi te li ma doon indil nga mak kon fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi man wala ñak geureum suñu borom nekk wa ngeur geureum li kañ lay ter mu nawaitu nawaytu dawaama نويت دوام الشكر بالآي خادما بخط لمن قدمته خير مولودي mu nekk dama fas yéene di la sant ba faw te ko àpp li mu bind ci sant boroomam ci ay xasida kenn xamul nu mu toll zintul qasaida lil wahaabi ashkuruhu biha wali saaqa ma qad faaqa maznuuni waaye avec loolu lépp taxul sëriñ bi am satisfaction au contraire dem na ba jàppani dafa lot ci sant boroomam cant gu méngoog li ko boroomam defal li waral loolu mooy cant gi dafa war a méngoo ak xéewal yi te xéewal yi du jeex lim na ci nuuru daara yi ni fukki mbir ak ñeent yu ko suñu borom defal yoo xam ne benn bu ci ne war na mën a tax ngay sant sa borom sant gu amul fu mu yem aw saltali laqantani fassartali la shakka fi ma min juttali alantali bila adan farraxtani layantali akramtani madaxtani madattali yasartali mallaktani ma xawtamaa yesu uni makkantani nee na suñu boroom la ma doon yóotu lépp jottalil nga ma ko aw saltali laqantani la ma bëggoon a dégg ci xam-xam yépp sanga ma ko fa sartali la ma jotoon na jàng te sama dégg-dégg des firil nga ma ko la shakka fii ma min ulaaka juttali nee na li nga ma may ci sa kawe kenn mënu koo xayma alantali nooyalal nga ma xolu jaam yi bilaa adan loruloo ma farraxtani bégal nga ma layyantali tàggatal nga ma akramtani teral nga ma madaxtani bàkk nga ma madattali bëbbal nga ma yassartali yombalal nga ma mallaktani moomaleel nga ma ma xawtamaa yesu uni li ma metti woon lépp faral nga ma makkante ni daaral nga ma moo tax mu jàkkaarlook boroomam ci midaadi wa aqlaam yi nekk hibaatuka lii aayat shukuriya say may dafa lottuloo samay samay ngërëm hibaatuka lii aayat shukuriya fil kunhi lakal hamdu yaa fardan taalay taan shibhi loolu moo tax mu wëlbatiku di sàkku ci jaam yàlla yi ne leen fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar saa yu dikkatee na ngeen ma santale sama borom parce que sant gi ma ko war a sant santi naa ne manuma kaa def man képp bu màggal jubsee damay gis ñu bari dañuy ñawlu bu bis bi jotee ñu war seeni oto di dem koo ci laaj foo jëm mun la damay màggali sans pour autant mu xam ndax moom dañ kaa invité wala déet est-ce que Serigne Touba ñépp la invité est-ce que ñep la wax ñu jappalé ke ci magal gi yeen lay déglu invité wul ñep dé xamna amna ñu naan boy lion bi nak dafa sob de lu ne lay wax sëñ tubaa mais luma la wax dina la fan la téggu sëriñ touba dafa wax ni ñi nga xamni limay bégal mo bégal bu bis bi ñëwé bëgg ñu sama borom boo bëggee xam ndax am nga carte d'invitation walla déet parce que màggal gi pay gi rëy na de mais am ci carte d'invitation yi moo jafe boo bëggee xam ndax invité nañ la wala déet dangay laaj luy bégal Serigne Bamba boo gisee ni la koy bégal moo lay bégal welcome you are invited boo gisee ne nag li koy bégal du moo lay bégal nga xam ne dangay xaaraan si rek kenn invité wu la lan mooy bégal sëriñ baam li koy bégal mooy liy bégal ab soppeem rasulullahi buy bég déglul bu baax buy bég dadaa bég ci mbir moo xam ne yàlla da caa bég Moustapha bég ca mook saabaam yeyallaahu bu dee gërëm day gërëm koo xam ne yàlla da koo gërëm mu faf ka gërëm mook gaaye yallaahu muhammad ibnu abdirahman ak tandaxi ñu déglu bu baax ki may wax nii naaru gànnaar la ku jege woon sëriñ bàmba la moo ko daan noddal bi sëriñ tubaa nekkee sénégal moo ko daan noddal bi sëriñ tubaa nekkee mauritanie jege woon nag ci anam boo xam ne bi sëriñ tubaa wàccee liggéey moom la kilifa yi jox ndigal mu defal sëriñ tubaa liñ ko war a defal lépp balaa ñu koy jëbal boroomam mom kessé nekkon ci bir nek bi mohammed Lamine Diop dagana don ko jappalé ñent ñi duggal Serigne Touba negam bu mucc di bamélam ci la bokkon mok Serigne Bakke buso mohammed Lamine gay ak Ahmad Dumbe mo len jébbal koor bi ba paré fekk len ci bir bamél bi koku jege Serigne Bamba de mo wax ni deglu len mune wallahi maa raaytuhu yafraxu fi zamanin min al azman kama yafraxu fi zamani shadaid nee maa ngi waat ci màggu yàlla suñu boroom masumaa gis sëriñ tubaa di bég ci benn jamono mbégte mu toll ni mbégte mi muy bég ci jamono bu mettee bu mbir yi naxare bu tiis yi bare mbégte mi muy àndal duma gis mu ànd ak moom ci beneen jamono nee na taraahu kulla mashtaddatil umuur yasdaadu tahallulan nee na da nga koy gis lu mbir yi di gën a metti kanam gi di gën a belli kooku nga dem ba àgg ci li koy bégal di la bégal du lu yomb Sëriñ Tuubaa wax na ni su ma sàkkoo dara ci sama boroom mu jox ma ko damay sant mais su ma sàkkoo dara ci yàlla mu xañ ma ko non seulement damay muñ mais damay bekk ci xagn gi mako suñu borom xagn waxna ci wasilatu rubuh ni ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in manata faridan wa sabru fal man'u فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك فكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم دير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي دقل البباخ نين يوسن بروم إن أعطيتني فشكر سما سما جوخي وسيلة الربوح من سنو بروم إن أعطيتني فشكر لما يساكو تيو بوما كجوهي دمي جرم وإن منعت بوما كخانيه faridan damay bég ci xañ gi ma ko xañ wa sabru doog a muñ fal manu wal ataa u qataan minka parce que dama dem ba mu leer ma ni joxe ak xañe yow képp kay def laa min siwaaka wa raditu anka keneen ku dul yow du joxe keneen ku dul yow du xañe te man lépp loo xam ne yaa ko def rek neex na ma fa kullu ma aataytani fa xayru lépp loo ma jox ci sama dund yiw la islaayi ji umin karimin tayru parce ku tedd luy lor du jóge ci moom ne la shakk anna kullama adxaltani fiihi min al ashyaai aw axrajtani minhu fa daaka abadan xayrun lii min gayrihi daarayni faltakun lii nee na aw ma dut aw ma werante ci ne lépp loo ma mus dugal ak lépp loo ma musa a génne moo gën ci man ci àddina gën ci man ci alaaxira nekk hada alladi azunnu bal uxaqiqu fiika wa anta biljamili alyaqu lii laa njortu ci yow njortuma ko sax lii mooy li am ci yow kooku nga dem ba mbégam doon sa mbég du lu yomb sage bi dafa wax ni su ma ñaanee yàlla dara mu may ma ko damay bég benn yoon mais su ma ñaanee yàlla dara mu xañ ma ka damay bég téeméeri yoon ñu ne ko lu tax mu ne parce que su ma ñaanee yàlla mu may ma ko li ma tànn ma suñu borom jox mais su ma ñaanee yàlla mu xañ ma lim ma tànnal moom la ma jox moo tax boo bëggee noppalu ci sa àddina da ngay doon ku nangul dogalu borom bi looloo waral aussi Sidil haji malik don ñaan boromam ci wasilatul muna suñu borom def ko ku ku kuy nangu ay dogalam ala balaika ya rahman ya allah ne ko يا ne ma geureum lo bil qada say dogal musabbirani ala balaika lepp lo xamne tek nga maka ci ay nattu rek mo muñ ko muñ gu rafet yow borom yermande gi Muziani شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك ya رحمن ya الله نك تنك مخير ba lepp lo xamne defal nga maka ci ay xewal lek ma geureum la ci hal min muzilin lima qad kana yuriduhu rabbul ibadi alaihim rabbi allah mu ne ndax amna kenn rek ko xamne ne mën na fi jëlee dara ci li nga xamne borom jaam yi nam na ko ci ay jaamam wa hakimun fi fiina kama yasha'u wa jallallahu yallahu mu ne suñu borom lim bëgg ci ay jaamam kese moy am fay wax ak yow ci kaddu go déggul mom yalla nala yapna adam parce que lu bari peut-être mo ngi lay stresser waaye déglul li yàlla di wax ak yow nee na yab na aadama turiidu wa uriidu fatruk ma turiidu li ma uriidu ontika ma turiidu wa anfaaka fi ma uriidu fa in tatruk ma turiidu li ma uriidu ataabtuka fi ma turiidu wala yakunu illa ma uriidu nee na bëgg may bëgg yàllaay wax ak yow bàyyi li nga bëgg fekk si ma ci li ma bëgg boo ko defee dinaa la jox li nga bëgg jariñ la ci li ma bëgg boo bàyyiwul li nga bëgg ngir li ma bëgg ma sonal la ci li nga bëgg te àddina bi dara du fi am lu dul li ma bëgg moo tax boo bëggee noppalu da ngay nangu dogalu suñu boroom ku lay menacer ci sa dund na la def ay ree parce que dogal yi suñu boroom bind na ko ay junni at lu bi lu jiitu muy bind jëmm yi waykatu Seydina Limaamu di imaam Mouhamadou Saxiir dafa wax ni alhamdulilahi gëm buur yàlla war na te gëm dogalam ya ndeem sunu diine wér na li yàlla dogal ci ab jaamam manul jaas dinay am fawwa ndem attem ba daw na lu jiitu amuk mbindéef yi ci ay junniy at la yàlla dogal dogal ya te loolu wér na ba looloo tax lu yàlla dogal ci ab jaam du dañ ci pexem mbindéef ndem yàlla bañ na kon bu bëggee noppalu dangay nangu dogalu suñu borom boo bëggee mbégam sëriñ Touba di sa bos ba nga am carte d'invitation ci màggal gi dangay am teggin ak sa boroom loolu mooy kii bi koy joxe déglul Maulana Cheikh Ibrahim Niass mu ne xat xassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi lakin na nit ni taxastuhu wakila te adduban faxtaara ni xalila nee na suñu boroom borom leen na ma xeetu xam-xam goo xam ni lu ma ni nekkal da ngay xaar waaye mu ne teggin ak yar bi ma am ci sama borom tax na xam-xam boobu duma ko utiliser mukk lu ma soxla dama koy ñaan suñu boroom mu ne looloo tax mu def ma xarit waaye nag maa ngi lay moytuloo bu baax ngay wéeru ci dogalu yàlla devant des situations yoo xam ne boo defee effort mu changé maa ngi lay moytuloo ngay wéeru ci dogal di ko justifier ay situation yoo xam ne boo defoon effort mu changé maa ngi lay moytuloo itam ngay ŋàññu dogalu yàlla ci ay mbir yoo xam ne dara xañu la lu dul sak yàccaaral wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu bu fekke dafa am divorce sa diggante ak sa soxna soxna si wara dem nga am loko wara jox suñu borom fay wax ni budé borom alal la budé borom alal nga buy dem nang ka jox xaalis bu bari budé bari wo alal nang ka jox sa kem xam nga num ka ko ay oustaz ñoma wër te jox na leen permission suma juma nañ ma jubanti dafa ne matti ni mattiuhunna alal muusi'i bu fekkee ku yaatal sa wërsëg nga bu soxna si di dem na ko jox alal ju bari bu dee dangaa xatal sa wërsëg nag wa alal muqtiri ismu fa'il la min aqtara bu dee dangaa xatal sa wërsëg nag buy dem na nga ko jox sa kem kàttan Mutawalli Sha'rawi yi dafa ne li tax suñu borom waxee noonu mooy dafa bëgg a sa attention ci na sa yaatu wërsëg ak xatam am na ci loo xam ne sa responsabilité la mais am na loo xam ne mbiram la moom yàlla mooy séddale. dama bëggoon a laaj koo xam ne ci yéen yëg na ci biir xolam cofeel ci Cheikh Ahmad Bamba gu wér mu yëkkati loxoom. gu wér ok ok xamoon naa ni xamoon naa ni loxo yi dina jóg xamoon naa ko avant parce que du seeni xol moo yaatu mais Serigne Touba moo bëgg he's so adorable dafa dafa aimable lek lek tiofel gi nga am ci mom do ko sax mëna comprendre bima nekké nekkee di jang bes mas sama jur wu jigen bésu gal won comme ni ma ke yaay tiofel gu reey gi ma am ci Cheikh Ahmad Bamba fan nga japp ni la wara joggé mu ree ba ci yag mu ne ma xajna na danga mu ne parce que sa sayyidina al imam al Mahdi wi la won bu bëggoon Cheikh Ahmad Bamba mais malheureusement man xawma sama bay bi muy génn adina ñenté at la am waye bima jangi je ba ñibisi sama ndijaay woo man ak samay frère jox ñu ben valise bu mak en fer bu fess del ak téré mu ne ñu seen bay mo len mo ka fi bayyi won mais bi ngay génn adina ay tout tank ngeen wo ma denc ko bi ngeen magge comme mag ngeen te jang ngeen waxane wa ngok biñu ko ubbe am na ci lenn ci xasiiday sëñ tubaab yu raar yoo xam ni ci valise boobu laa ko jëkk gisee pour la première fois ci laa xam ne li sama yaay wax nekkoon na ci moom liggéey bi ma defoon ci muxaddamaatul am daax sama yaay laa ko mayoon comme dédicace c'était en 2007 maa ngi waxoon ci dédicace bi ilallati addabat nii fa ahsanat taadibi wa daxat bi xaaliha wa nafisiha fi sabili tarbiyati إلى التي كانت لي في ماضي حياتي وأرجو أن أكون لها في مستقبل عيشي إليك والدتي أهدي ثمرة هذا العمل ما وخني ليغي بي مانكاي ماي sama yaay ji nga xamni moma yar rafetal sama yar sacrifier lepp luy richesse am ngir samam jang ki nga xamni moma nekkalon ci li wessu ci sama dundu may am yaakaar nekkal ko ci li des ci sama dund yow sama wayjur yow laay may liggéey bi bi mu jotee document bi daf ma woo ne ma ne xam naa ni danga xër ci man rek waaye liggéey bi sa baay moo ko moomoon mu ne ma nag bi ma liiree page de dédicace bi sama rangoñ dafa tuuru mu mel ni fukki étage nga ma tabaxal parce que li ma doon séentu ci yéen du woon am am mais xam-xam la woon ma def benen liggéey ci burda at taswirul fanni fi burdatil busairi liggéey boobu nak ma may ka sama bay wax ka ilayka ya abatahu uhdi samarata hadha al amal laqad ghadartani qabla nuumati azafiri فعلمتني سيرتك الحسنة أي شجرة أثمرتني أرجو أن تصلك الهدية وأنت في فسيح الجنان ريان بفيض رحمة المنان ولدك عيسى منك يوسم باي يولاي مي ليجي بي bi nga may wan ginnaw di delu ci sa borom may wee degeerugul xamuma la waye liñu ma netali ci yow moma xamal ban garab moma ma amna yaakar ni cadeau bi ci aljana yi gëna a la lay fekk nga nek ku mand ci yërmandey borom bi sa dom ju dojji ji isa two years later ma def benen liggéey mayka daj depp gi nga xamni lepp mom la moy imam muhammadu sahir di sama mam. ببحر إمام الله قد كنت غائسا لذا كنت دافعا له ضد ذي الجهل فأسقلت أقلاما تحاكي سيوف من لبدر وخندق يلبي بلا مطل إليك يا محمد الصغير أهدي ثمرة هذا العمل وأنت بأحسن منه جدير nekk ci سيدنا الإمام limaamu nga daan يالا moo tax yàlla wan na ci nga taxaw yett ay xalima di ko défendre xalima yo xamni dara jey jasi ya don xex badar ak xandax la amé yow muhammadu saxiir yow lay may liggéey bi ta xamna ni mérito nga lu ko fété kaw donc cofeere ci cheikh mat bamba leg leg doo ko sax mana a doo ko mana a ko mën expliquer waye dina len xamal ay mbir ci bëgg serigne touba yu am solo bi ci jitu moy bëgg sëriñ bàmba ku ko suñu borom wërsëgal dafa nam ma sag texe moo ko waxal boppam li taxa taxaa bil muntaqa kullu zi shaqa wa yanxu bihi naxwi saidun wa zu tuqa ak a mën bind dafay distribuer même lettres yi nombre xaa ak nombre xaaf yi ci bayit bi ñoo tolloo mu séddale lekk ñaari parte fu ci ne mu def fa ñett لغير انتحى بالمن تقى كل ذي شقاء وينحو به نحوي سعيد وزو تقى نانا بو ناري تروخ nee na boo naree torox déglul bu baax nee na boo naree torox danga may teggi mais képp koo xam ne yëg nga ci sa xol tendance bu jëm ci man rek suñu borom dafa nam ma sag texe gis naa ci silkul jawahiri fii axbaari sarairi lettre bu mu bind benn taalibeem bu tudd Ibrahim xaw ma nag kan la ci taalibe yi xaw ma Cheikh Ibra Fall la xaw ma Ibra Faati la xaw ma Cheikh Ibrahima Saar la Sëriñ Tubaa dafa ka ni ayuhal masbuux bi xubbina la laa yusbaxu bihi illa saidun laa yashqa Cheikh Ibra Faati borom daaru mooti nee na ko yow mi nga xam ne danga dee ci bëgg ma te ki nga xam ne kenn du dee ci bëgg ma ku dul kuy texe te doo torox ba faw bëgg Cheikh Ahmad Bamba pay gi ci suñu borom di fay mën naa rëy ndax wax na ni wajhu lladi yuhibbu ni yab yaddu yawma wujuhi suada tab yaddu nee na man ki ma bëgg borom kanam gu weex lay doon ci bis bi nga xam ne ñiy texe rek la seeni kanam di weex bëgg sëriñ tubaa sax su ma neexee ni jaamu yàlla la parce que wax na ni ñi ko bañ duñ jóg ci def bàkkaar radattu aada al ilahi wa nabi wala bi waaye tamit bëgg sëriñ tubaa moo gën a wóor de ndax kafaani xafiidun maaniun jumlatal ida alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna almuqaffa man qalaaniya yardan nee na xam naa bu wér ne suñu boroom nekkal na ma te rasulullahi ku ma bañ mu defal la bagaas man qalaaniya yardan man qalaaniya yardan waaye waaye mbir mi du bëgg Sëriñ Tubaa kese ngañaay li du bëgg serigne touba kessé ngañaay li moy nga bok ci soppeem yi muy tuddu ci mu amdah lolu moy affaire bi kafani hafizun mani'un jumlatal aida wali qaada bihim uzhirun nuska nena gad brought me some beloved followers that I use to show the world how to worship the world, how to worship the Lord. كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزهر النسكا nee na suñu borom wommatal na ma ay soppe yoo xam ni ñoom lay utilise pour wan àddina naka la ñuy jaamoo borom bi ndax ci ñooñu nga bokk wala déet soppe yu mel noonu ñu bari woon nañu ci génération bi jiitu ci ay taalibeem mën naa ci tudd Mamor Jaara mi nga xam ni téeméeri ràkka la daan naafila guddi gu bés bu ne mën naa ci tudd sëriñ ndaam abdourahman loo mi nga xam ni kaamilu alxuraan la daan naafila guddi gu ne te ci ñaari ràkk la ka daa def mën naa ci tudd sëriñ Bakke Buso maam Cerno Cheikh Ibra Fall Cheikh aadama Gueye sëriñ Daaru Asan

ñooñu ñëpp ci ahbaaban uzhiru nuska la ñu bokk sëriñ daam abdourahman loo guddi gu nekk wirda woowu la ko sëriñ tubaa joxoon mooy wirdam guddi gu nekk nanga nga naafila kaamil bi te ci ñaari rakk nga koy def sëriñ mbàkke buso maam cerno cheikh ibra fall cheikh adama gaye sëriñ daaro asan njaay sëriñ Amsatu Jaxate Cheikh Issa Dieng sëriñ Baara Faati Mbóoj sëñ Modou Gueye jëmmooy liste bi du jeex question mooy ndax ci ñooñu nga bokk wala déet ay soppe yoo xam ne nee na ñoom lay utiliser pour wan àddina naka la ñuy jaamoo boroom jaam yi bu fekkee ni am na décision boo war a jël ci màggal 2022 na nekk nga bokk ci ñooñu parce que tubaa Touba mi ma xam dama dégg ci benn boroom xam-xam bu mag bu tudd Chouaïbou ñoo doon jànganoo marok yi bu caw mu ne man léeg-léeg Serigne Touba mi may liir ci ay xasidaam di ko liir ci Minanul Baaxil Xadiim di ko liir ci Irwaul Nadim ak Serigne tubaa mi may gis gàmmukat yi di waxtaanee ñaari Serigne Touba yu bokkul la Serigne Touba mi ma xam. bëgg-bëggam moy képp ku koy tuddo di ab talibem nga nek exemplaire ci jaamu yalla suñu borom dafa wax borom nek li saxiran tawabi'i jamia hatta yasira kulluhum mutia ndeka tagatal ma samay way topé ba ñum ñepp doon ay kat yalla suñu borom serigne touba ku sori ay tiaxan la Lelek, may méditer ci ay mbindum ñaari nit la gëna mokal seeni qasida sama Mam bi jur sama yaay imam Muhammad zahir ak cheikh ahmad bamba talibé sayidina al imam al Mahdi ñaar ñaan yi la gëna mokal seeni bind sama ñu du selaw fo ma gis damay wayantu Lelek, sax sumay may ak nit ab diir dama kay yé nek bo ma gisé may waxtu dofuma ni la mel toog sama tudd sama lal deug kaddu guy ñew burda la buñ doon jank burda Zalam tu sunnata man ahya zalama ila anishtakat qadama hudurra min warami wa shadd min sahabin ahshahu wa tawa تحت الحجارات كاشحا مطرف الآدم travel sori lool ci sama xol xawma fu muy jóge mu jóg di topp kàddu gi ndekete kàddu gi fu sori lay jóge ma dem ba gis mbooloo mu toog seen kër di jàng ma toog ci wet pare ma dellu fi may liggéey it léeg-léeg may wayantu xasida yi jekki-jekki rek daw dugg ci toilette yi parce que samay rangooña may bett du ma bëgg ñi may gis ma may parce que damay lire entre les lignes damay xol li Serigne Touba di wax mais Serigne Touba ku sori ay caaxaan la guys position bi mo amone ci xare Samba Sadio bi ta mo déranger won Lat jor mu di ko inviter ay yor pour laaj mu baña a dem bi ko mbiri déranger dafa wax ndaw li Lat jor yabalon nek astaxyi antarani malaikatur rahmani tahmilu tahmiluni aqdami ila malikin nee ko dama am kersa malaakay borom bi di ma gis samay tànk gàddu ma may dox jëm ci beneen buur bu dul yàlla ku sori woon ay caaxaan la ñi mu yaroon ñu sori woon ay caaxaan lañu sëriñ Bachiru wayjuru sëriñ Muntaqa nee na dama musa dem jëm ci moom doon ko jox yóbbante buñ ma jox pour moom nee na yóbbante bi maa ngi ko def ci sama poche jamono yooyu poche yi ñu ngi koy ñawee ci côté droite bi loxo càmmoñ bi mo kay jekku right nee ma ñew tok ci kanamu serigne bamba jël sama loxo càmmoñ yor ci poche bi genné yobante bi téye ko ci sama loxo càmmoñ nee mu gëdd ma fixé ma ne ma ndax ni nga kay defe ab ta ab càmmoñ ngay ngay jëfëndiko nen tenena dama dama sama bay. nee man yag jël mbir mi transféré ci sama loxo droite déglul nee na ma réalise ni li ma dese ci yar ak ci roy rasulullahi moo ëpp foofu li ma ci am baayu sëriñ Muntaxa sëñ Tuubaa ku sori woon ay caaxaan la rabbi bi maa yashraxul azhaana qad fajaa bijaahi afdali man lillahi qad lajaa xamdi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadri al yawma nuuran saatian walaa muhammadin salawatullahi fi abadin alayhi fi xisbihi kulli bihi kalaa ad'u ilahi alladi ammat mawaahibuhu li jumlati alxalqi maa yaxtaaru man baraa naajaytuhu jalla awaaman wa karramani takrima haadin wa kulli min lagan baria sëñ Tuubaa nee na sama lépp dafa set wicc ci lépp loolaale ak ay caaxaan sëriñ Modou Mamoun mu sëriñ Fallou nee na ma bi ko sëriñ tubaa di bind bi mu àggee ci yaa maalikal mulki yaa man jalla xawadin suñu boroom dani ko woowee nga ma tur wu ma neex ahmadu loolu loo ci teg ma defal la ko mu teg ci irham jami al wara yaa hadiyan radaa yëlëmal mbindeef yépp kon nañu xol suñuy xol nañu xar suñuy xol bëgg mbindeef yépp xar suñuy xol yërëm mbindeef yépp xar sunuy xol nangul mbindeef yépp te ñu xam ni ñu baax ñi fi daa dundal lislaam ci duniya ku mel ni limaamu ak cheikh bàmba cheikh na te mooy cheikh saadi boog alxaaji malik ka jàpp mbiram ci cheikh omar kamal na alaaji omar mada xeex ngir ga lislaam kaza alxaaji ablaay ñas jiyaar na sëriñ canaba sëriñ bu kunte ñii ñépp ñu baax lañu woon te tey ku ci nekk dem na ilaahi yàlla nga boole njaboot gi cig yiw defal ñu fépp fu nu jëm am la maana saxal ñu ci diine may num koom te bañ noo nattoo cig bew wala ñàkk ak di sonn dimbali nu ba képp koo gis muy saxoona alhamdulilahi rabbil alamina salaatullahi summa salaama rabbi alal muxtaari xayril alamina wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.